Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi ñu fas yéene ñëwaat ci suñu ñetteelu jataay ci waajal màggal niñ ko waxe woon toujours ñu nekk ci bayitu sëñ bi boobu nga xamee ni moom la doon wax naan karamati xattu yadi fi xidmatil muayyadi wa kaana li bid af yadi allahu mawlal karami te mooy li mu waxoon ni sama karaama moy sama mbindum loxo ñu jàngatoon ci jataay bu njëkk ba mbindum sëñ bi ak tawxid jàngat ci jotaayu ñaareel bi mbindum sëriñ bi ak uh, islam kon tey ñu bëgg a ñëw ci mbindum sëriñ bi ak tasawuf comme ni ñu ko waxee woon ni nga xamee ni sëñ bi dafa nekk mu jaddit lan lay beesal mooy diina lay beesal ak sunna na uh, Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatul xaraabu huwa ahmadu nga xamee ni sunna lay beesal kon mooy diina lay beesal te diina waxoon nañ ko ba jibril ñëwalee yonante bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko ñetti laajam ya maa huwal iman maa huwal islam maa huwal ihsan mu tontu ko mu ni zaaka jibril ataakum yuallimakum amra diinakum kooku fi ñëwoon jibril la da leen xamal seen diine bu ko defee kon sëñ bi noonu la ko doon ne moom itam bind xamal ñu tawxiid waaye bind xamal ñu lan mooy shariha waaye bind xamal ñu lan mooy tasawuf bu ko defee kon tasawuf boobu ci lay waxe ni ixsaanukum an taabudu zalminani ka annakum tarawnahu bil ayuni in lam takunu xad raaytumuhu fa xad raakum fa raaxibuhu waaw nee na ixsaanukum seenuk rafetal so ngeen bëggee xam lan mooy ixsaan mooy an taabudu mooy ngeen jaamu zalminani borom xéewal yi te mooy yàlla waaw nee na ngeen jaamu borom xéewal yi kon xéewal yi kenn du ko jël di ko askanale kenn ku du suñu borom subhanahu wa taala nee na an taabudu zalminani ngeen jaamu borom xéewal yi ka annakum tarawnahu bil ahyuni bu ngeen koy jaamu ngeen mel ni yéen a koy gis ak seeni bët lam takunu xad raaytumuhu su fekkee nekkuleen di ko gis ak seeni bët loolu leen loolu fa xad raakum kon ngeen xam ne yàlla moom mi ngi leen di gis ndax waxoon na leen ko ca ba muy jàngale tawxiid ni inna allaha samiun basir yàlla kuy dégg la kuy gis la kon nga xam ne yàlla mi ngi lay gis kon fa raaxibuhu na ngeen ko fuglu kon sëñ bi daal nee rafetal soo ko bëggee xam soo bëggee sa jëf mën a sell mën a rafet mooy lépp looy jëf saa booy jaamu yàlla na nga mel ni yaa ngi koy gis yaa ngi jàkkaaru yàlla di ko gis wala su fekkee yow jàkkaarloo ak moom di ko gis itam nga xam ne moom yàlla mi ngi jàkkaarloo ak moom di la gis bu ko defee nga fuglu ko te mooy nga bàyyi ko xel kon nee na loolu mooy eh, ixsaan ixsaan nag buñ ko waxee muy tasawuf eh, munta lislam munta mat te tasawuf bokku ci waaw ndax tasawuf mooy sellal gi mooy ruuxu lislaam tasawuf mooy ruuxu lislaam kon mënoo am lislam te amoo tasawuf waaye tasawuf itam kenn mënu koo jëfe moom dong te boole woo ci shariha boole woo ci tawxid ak shariha ndax tasawuf dafa mel ne ak ruuxu ruuxu bu amul jëmmu du am njariñ du dund waaw jëmmu mu am ruuxu bu dee jëmmu ji dafa mel ne lislaam mooy jëmmu ji ruuxu gi mooy tasawuf bi tasaw soo seppee tasawuf bi kese itam su boobaa dootoo am jëmmu ji dund ruuxu kese kay am doo am jëmmu motax kon ñaar yoy ben mënu ci dem bàyyi sa morom moo tax mu waxon ci masaaliku mu waxoon ca masaalikul jinaan ñoo man tafaqaha bila tasawufin fasu tafassuxin sarixin faarifi ومن يكن بحق ذا فإنه إلى تزندخ أمال شأنه ومن لفقه وتصوف جمع فهو الذي حق له أن يتبع موي واخني ومن تفقه بلا تصوف كو خم داغا نيك فقيه te boolewoo ci tasawuf mooy nga am xam-xamu shariha te boolewoo ci tasawuf te mooy selal gi ci war defoo ko fasoo tafassuxin sarixin kooku ab kàccoor lay doon waaw kooku faasix lay doon mooy am na xam-xam waaye jëfewu ko wala jëfe gi sellalu ko kon kooku ab kàccoor lay doon waaw noonu kooku fasoo tafassuxin sarixin la bu leer faxari fi na nga xam loolu waaye nag waman yakun bi xaq ziza ku bëgg def safaanub lool nag te mooy ni man ci tasawuf képp laay nekk man daal tarixa kese lay dundal sharia moom sama yoon nekku ci nee na loola mu ko def fa innahu ila tazanduxin amalu sha'nahu kooku mbiram mi ngi jàng jëm ci ak sindiq sindiq nag buñ ko waxee mooy koo xam day nëbbu kéefër di feeñal lislaam waaw nee na kon ki nga xam dafa bëgg a jël tasawuf kese mooy tarixab kese la bëgg jëfe bàyyi fa sharia nee na kooku ab sindiq la sindiq nag mooy koo xamee ni dafa feeñal lislaam waaye la nëbbu ca biiram ak kéefër la nee kon ñaar yoy ben munu ci dem bàyyi morom mi boo bëggee jëfe sharia bàyyi fi tasawuf ab fasikh kacior ngay doon waye so bëggee jëfe tasawuf ba pare bàyyi fi sharia itam ab sindiix ngay doon moy manam ab nafiq ngay doon ko xam ne ni dangaa ak njullit waye la nëbbu sa bir ak kéfer la muné kon waman li fiqhin wa tasawufin jama ki boole fiqh ak tasawuf ki boole sharia ak haqiqa fa huwa allazi huqqa lahu an yutabax kooku moy ki nga xam ni kuñ wara topula moo tax kon mënoo jëfe sharia te boole woo ci tasawuf waaye mënoo jëfe tasawuf kese te boole woo ci sharia kon sharia niñ ko waxe woon da nga il faut imaan mooy jiitu ni ko sëñ bi jàngale woon ci tawxiid ni ma ko waxoon ci jotaay bu njëkk ba bindi fukki téere ak ñaar di jàngale tawxiid na yonante bi sallallahu alayhi defoon fukki at ñett ca màkka di jàngale tawxiid noonu le sëriñ bi def bind ci fukki téere ak ñaar moom itam di jàngale tawxiid moo tax mu wax ca eh, du shubaan أول واجب على المريد تحصيل زاده من التوحيد قبل اشتغاله بالانفراد بالذكر وحده وبالجهاد nee na awal waajibin alal murid li jëkk a war li jëkk a war ci ab murid waaw ab murid nag bu ko waxee mooy ku nam ma jëm ci yàlla ak tarixa boo mën a bokk waaw tarixa boo mën a bokk tarixa boo mën a bokk murid ndegam murid nga rek nam ngaa jëm ci yàlla nee na li jëkk a war ci yow taxsilu zaadihi mooy nga fexe am sab yóbbal mina tawxid yi ci tawxid yóbbalu mat sëkk nga war a am ci tawxid kon képp koo xamee ni da ngay askanalu ci da ngay askanoo ci tasawuf rawatina ngay askanoo ci sëñ bu mag bi kon da ngaa war a am tawxid moom lu mu gàtt-gàtt fukki téere ñaar yi ñu limoon soo munte jàng yëppit lu mu gàtt gat war nga cee mën a jàng benn même soo munte jàng benn nga am ci benn boo xam dañ la koy firil nga enregistré ko nga déglu ko xam li sëriñ bi jàngale ci tawxid rawatina téere bi ñuy wax Mawaahibul Quddus boobu moom bépp murid képp ko nam ma jëm ci yàlla ku di murid war ngaa fexe ñu firil la ko soo ko munte firil ñu firil la ko defal la ko kaset wala ñu defal ko nga di ko déglu ba xam di sëñ bi jàngale ci taw tawxiid ba looy jëfati nga xam fi nga ciy teg sa tànk waaw kon li jëkk a war ci am murid mooy fexe ba am yóbbalam bu mat sëkk ci tawxiid xablan si xaalihi bil infiraadi bi zikri waxdahu wa bil jihaadi bala ngaa soxlawoo beru ak zikar ak euh, jihaadu nafsi muy xeex ak sa bakkan bala nga yitti woo ci beru ak xeex ak sa bakkan ak jiha jihaadu nafsi te mooy suubu ci tasawuf nga euh, am yóbbal bi nga war a am ci tawxiid ba noppi ndax mooy tax am yoo xam ne boo fa eggee doo tar doo tarxiis ñene muntahijan mazhab ahli sunna mahal jamaahati wa tilkal junna waaw bu ko defee nag bi nga amee sa yóbbal bu mat ci tawxiid nga ngiroo ngirum ahlu sunna wal jamaaha ahlu sunna wal jamaa mooy fi salafu saalih jaaroon mag ñu baax ja fa ñu jaaroon ca saxaaba ya taabixina ya nga xam ni ngir moomu ci la jullit ñi tënku muy mbooloom jullit ñi nga fexe ba xam ngir moomu nga ànd ceeg ñoom jaar fi mbooloo mi jaar fi jullit ñi jaar nee na bu ko defee nag wa baxdahu taxsilu maa yusaxihu bihi furudul ayni fii ma sarahu waaw nee na bu ko defee soo paree ci tawxid nag nga fexe am li nga xamee ni mooy wéral sa ayni taxsilu yu yusaxi bi furudal ayni a li nga xamee ni mooy wéral sa fardu ayni nga xamee ni kenn ku ci ne yaa ko mën a taxawel sa bopp ñu ni ko lu mel ne mu ni ka toxari wa siyaami wa salaati wa xajju baytillahi wa zakaati waaw lu mel ni ki laab lu mel ni woor lu mel ni julli lu mel ni aj màkka lu mel joxe azaka nee na yooyu benn bu ci nekk nga xam ne fardu ayni la ci nit ki so mooy farata jëmmam la kenn ku nekk njàpp ak sangaay ak la ca war laab ak la ca war yaa ko mën a defal sa bopp kon kenn ku ci ne da nga ko war a xam kon kenn sëñ bi bind na ci ay téere comme niñ ko waxe woon niñ ko waxan ci jotaayu ñaaral bi moy sëñ bi ak charia nga xam ne leen ci nekk bind na ci ay téere jàngale ko ba mu leer kon képp ku aju sëñ aju sëñ bi waruñ laa mën a laaj nan la ñuy jàppee wala nan la ñuy sangoo farata te mënoo ko wala lan mooy faratay koor te xamoo ko wala lan mooy faratay julli xamoo ko leen ñu ci ne bind na ci ay téere yu baree baree baree bare wax na ci benn téere wala téere yu bari sax wax na ci ni képp koo xamee ne julli nga ba noppi wala jàpp nga ba noppi ñu laaj la li nga def lan moo ci farata ak lan moo ciy sunna ak lan moo ciy ngëneente xàmmee woo ko nee na bu dem jàpp sa jàpp moom wérut bu dee julli sa julli ko wérut kon kooku ku topp ci moom sëñ bu mel noonu ku topp ci moom euh, mu bind lu toll nii waroo di def di jëf ci ay làmbatu waaye li ngay jëf da ko war a teg ci ak xam ndax tegal na la yoonu xam bindal na la ay téere nga mën koo jàng mën cee xam bu ko defee julit bi nga xamee ni itam dafa war a dem màkka kooku itam fardu xayn la ci moom mu jàng lan mooy farata aj lan mooy ponki aj lan mooy yàq aj lan mooy liñ sopp ci aj loolu lépp sëñ bi bind ci ay téere war nga koo gëstu ci téere sëñ bi jàngaat ko ba mu leer nga doog aji màkka waaye ki nga xam ne yëngut ci am commerce itam lépp luy azaka alal jan la azaka war ban som nga war a am asaka war ci som bi boo ko amee lan nga war a génne ci asaka loolu itam murit bi war na ko gëstu ba xam ko ndax lépp sëriñ bi jàngale na ko kon kooku itam war na ko gëstu bam leer ko bu ko defee kon ginnaaw bi sa tawxiid wéree te sëñ bi bindal la ci ay téere yu bari noonu nga war a fexe ba sa fardu xay ni tamit wér ndax te sëñ bi itam bindal na la ci ay téere yu bari nee na bu ko defee ne wa baxdahu yasluku in raamal wasulu ala yaday mukammilin yaxfu rasula nee na soo paree ci lool nag wa defoo ginnaaw bi nga amee sa yóbbalu tawxiid xam say fardu xay ni te mooy say faraday jëmm su fekkee da ngaa nam sóobu nag ngir egg ci suñu boroom nanga sóoboo ci loxoy sëriñ bu mat sëkk doon koo xam ne day topp yonent bi salaa sallam xalaa yeday mu kammilin yaxfu rasula da ngay sóobu ci loxoy sëriñ bu mat sëkk ba pare doon koo xam day topp yonent bi kon su fekkee dangay ngay sóobu yoonu tasawuf mënoo ñàkk am ab sëriñ waaye dina ko jàngale ci kanam bu ko defee sëriñ boo xamee ne sëriñ bo mat sëkk lay doon waaye na doon sëriñ boo xamee ne tam du nekk majisub waaye day nekk saalik waaw sëriñ boo xam day sobu waaye du doon majisub koo xam dañ koo jazbu ah, ndax sëriñu majisub am na waaye sëriñu majisub kenn wuru ko roy ah, sëriñu majisub buñ ko waxee mooy koo xamee ni ci misaal soo ko doon misaal dañ naan mooy ki nga xamee ni ci misaal dañ dafa da nga da ngaa ñëw ah, nga ñëw Touba ma misaal yu dëkk boo xam ñëpp dañ koy xam nga jël benn nit Touba takk bët yi neuf heures nga takk bët yi dugal ko ci avion wàcce ko mu naaw quinze minutes nga wàcce ko dakaar ca buntu pale ba tekki bët yi kooku boo ko laajee diggante dakaar ak Touba ñaata lañ koy daw quinze minutes la lay wax soo ko nee ndax diggante Touba ak Dakar am na dëkk amut ab dëkk la lay parce que moom gisu fi ab dëkk kon kooku danaa la amut dëkk kooku loolu mu wax moom mooy dëgg ci moom ndax gisu fi ab dëkk diggante bi te diggante bi li mu ko daw it quinze minutes la kon da wax ne diggante lañ koy daw loolu mooy koo xam majzub la ki nga xam dañ ko ne coppet fi mu nekk rek yóbbu ko mu egg ci yàlla directement loolu nag du sëriñ yëpp a ko man du ñëpp lañ koy defal du ñëpp lañ koy defal bu ko defee kon sëriñ bi ngay àndal mu di la teg ci yoon day nekk saalik mooy koo xam day départ ak yow Touba romb ab dëkk romb ab dëkk romb Mbàkke romb Njaareem romb Bambey romb Xombal romb Thiès romb Jamñaajo ja ak yow Dakar nga xam ni fii yoon fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar yoon wu ci ne mu xam dëkk ba fa mu jëm ak na fay jaar wala bu dee da ngay teggi yoon wa teggi wa a gaaw mu xam ko loolu mooy seyxun mu kammelin yax fu rasul bu ko defee kon sëriñ bu mel noonu kuy sóobu ci kooku ngay jaar mu teg la ci aw yoon di om mat ba nga egg ci sa borom bu ko defee nee ne yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada sëriñ boo xamee da koy wommat ci xam-xam ak jaamu yàlla yaqulu bil ilmi wal ibaada sëriñ boo xam dalay wommat ci xam-xam ak jaamu yàlla kama yurabbihi comme nim li koy tarbiya bi tarkil aada ci bàyyi li mu tàmmoon ci bakkanam waaw ko defee koo xam dalay wommat ci xam ak jaamu yàlla bàyyi loola yépp yi nga tàmmoon yoo xamee ni dalay gàllankoor ba tax doo mën a egg ci yàlla kon cheikhul mukammilin sëriñ bu mat moom munte ñàkk ci tasawuf moo tax mu ni faman bi mahmahi tasawufin nazal bi xayri tashbi bi xayri tashiixi murabbin xad kamul fa innahu yaxuudu fi lujji rada wala yaji minhu shay'an abada faman bi mahmahi tasawufin koo xamee ni wàcc nga ci àllub tasawuf maanaam bu ko doon misaal as tasawuf nekk benn àll soo ci wàccee bi xayri tashiixi murabbin xad kamal te àndoog ku la murabbi cheikhul murabbi sëriñ bu lay tarbiya ku mat sëriñ bu mat xam pakk yi comme niñ ko waxoon ci beneen téere fal yasab cheikhan aarif al masalik yaqihi fi tariqihi al mahalik da ngay ànd ak sëriñ bu xam pakk yi sëriñ bu xam soobuwaay yi man laa fegal pakk yi bu ko defee nee na kon kooku soo duggee ci tasawuf te amoo sëriñ bu mel noonu fa innahu yaquudu fii lujji rada ci lëggum alkande ci ngay xuus yaa ngi xuus ci lëggum alkande walaa yajiu walaa yajiu minhu abada te doo fa jële dara waaw li annahu yaxuuduhu shaytaanu wa nafs wal hawa kama abaanu ndax kooku nga xamee ni dafa dugg ci lëggum tasawuf te amul cheikhun murabbin kaamilin kooku la koy mujj di wamat mooy seytaane koy mujj wamat ak bakkan ak bànneex te mooy la ko seytaane dicté ci xelam wala li xelam jàpp li bakkanam jàpp ni lii lu baax la bànneexam jàpp ni lii lu neex la loolu rek lay jàppee ni mooy tasawuf fekk booba mbir mi du loolu moo tax mu ni wa man yaxud alxaqiqati bila fulki sharihati fa hum xuhun jalaa waaw képp koo xamee nag gis nga ko muy xuus ci géeju xaqiqa te mooy xuus ci tasawuf bila fulki sharihati te xuusiwu ko gaaluk shariha bu chari bu xaqiqa tasawuf nekkoon géej bala nga cee mën a sóobu faaw nga am gaal goo dugg pour man cee dugg pour man cee jàll gaal googu ngay jàlle nag mooy shariha mooy li mu waxoon ca eh, masaalik jinaaba wa man tafaqa bila tasawufin kooku su boobaa soo duggee ci euh, waman bi xaq si sa mooy safaan bi nga bëgg a dugg ci tasawuf te jaaroo ci shariha nee na da ngaa mel ni kuy xuus géej te yoro gaal su boobaa kooku nee na fa hum jala kooku borom ndof gu feeñ la mooy koo gis mu bëgg ni moom xaqiqa kese lay dugg tasawuf kese lay dund te boolewu ci charia nee na kooku na la wóor ne ab dof la boo xamee ne ak ndofam lu feeñ la euh, loolu tax ci tasawuf nga xam ne dafa doon buntu boo xamee ne su ubbeekoo ñu bari dañ ciy bëgg a boroxlu di woote ay maqaama di wane ni tasawuf la nekk ñoom dañoo am xaqiqa ñoom dañoo am baatin te waxoon nañ ni wa baatilun lam yuwaafiq shariatuna فقره بالنون فقر باللام لا بالنون فاختني فاختني بكيب كوي ووتاني باتين برم باتين لا تي باتين بي ديبوت اك باتين بو بولكو بول واخ باتين بولكو بين نون واي بين كو لام خامل كو دو بروم باتين واي بروم باتين لا مانا دو بروم حقيقه واي برومي تياخان لا موتخسين سيني بي تيلون تي في جامونو جي جيم موتاخ مو تيلون ييتني تنبهو يا ايها الشبان خادكم الى الهدى المنانو في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة كل حين كادت تراك رسم دار خدعفا في ذا الزمان لمدي الحنفاء ننا تنبهو نغين يو يا أيها الشبان ين جنس بي آه، نغين نغين يو باي لين سين خل ت déglu خادكم الى hudal manaanu maa نيانا leen di ñaanal nag yàlla lan ngeen di yeewu mooy fi anna sunnata nabiyina al amini alayhi afdalu salaati kulla xiine kaadat turaaka rasmi daarin xadaxafa xam leen ni kat sunna si yonte bi salaa sallam ci jamono jii ñu nekk te moom jamono jam doon wax kon dafa mel ni jamono jii moo taxoon ñuy wax muy wax mu ne ci jamono jii ñu nekk sunna si yonte sala dafa mel ni kër goo xam ne ni kër gu ràpp la waaw dafa mel ni kër goo kër goo xam ni kër gu ràpp la ñu ne lu tax la mun li mu diyel xonafaa ndax ñu jub ña dañoo dem wa tabiatha chiyamu suyuuxi zawil huda wa nuuri wa rusuuxi ñu salafu saalix ba dem nañ waaye jikkooy sëriñ itam sëriñ boo xamee ne borom jub la borom leer la borom xam-xam la jikkooy sëriñ jooju itam dafa dañ ci sëriñ yi léegi nee na sëriñ jikkooy sëriñ itam dafa dafa dem ba ràpp mel ni kër gu ràpp mu ne li waral lool nag mooy historique historique iqtifaau asaari salafi li bidain xad ziyinat bayna xalaf nee na ndax dañoo bàyyi xañtu jeexitali salafu saalih dañoo bàyyi xañtu jeexitali mag ñu baax ña jëm ci ay bidaa yoo xamee ne ñi fi wuutu ñi fi ñi wax ne ñoo wuutu mag ñu baax ña nee na dañoo indi ay bidaa yoo xamee ni dañ koo taaral ci e, bëti nit ñi rafetal ko ba mel ni mooy doxalinu mag ña te fekk nee na loolu du doxalinu mag ña loolu nag nee na moo moo ràppal moo ràppal sunna moo ràppal jikkoy sëriñ sa waaw ndax bàyyi nañ jeexitali mag ña jëm ci ay bidaa yoo xamee ni ña leen fi wuutu dañ koo sos di ko taaral euh, muy lu lu lu yaatu ci jamono loo xamee ni euh, lu yaatu ci jamono nga xamee daanaka foo dem loolu dafa bari foo dem loolu dafa bari yu bari yoo xamee dañ koy defar euh, sos ko taaral ko te soo ci àndul ñun la doo ab taalibe waaw yu bari yoo xam ne dañ koy dañ koy def ci ginnaaw sëñ bi lañ ko sos te boo boo boo ci àndul ñu ne amuk taalibe wala doo ab taalibe te fekk boo dellu woon ci mbindum sëñ bi la ma xam ne karaamati xattu yaddi da ngay gis ne la mu bind ak li ñuy woote lu ci bari mi ngi commencé di di soppi ko moo tax mu ni kon fa saariu lil xilmi musinina naawi na wajhillahi ajmaina kon fa saariu lil xilmi na ngeen jëkkante jëm ci xam-xam jàngi leen xam-xam bindal naa leen bàyyi fi dem leen jàngi li ma bind ngeen ngeen jëfe ko fa saariu lil xilmi musinina dem leen ngeen jëkkante leen ngeen jëm ci xam-xam euh, ngeen gëstu ko jàng xam-xam ngir jëm yàlla من نغ ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفه اللعين المجرم ومن نهاكم كيب كولن دي تيرا عن التعلم تي خملو تي جانغ فهو خليفه اللعين المجرم خملا نيكوك كوك موي خليفه ابليس مكاتور مي في كل ما يفسده تي ليب لو خامني ورا نكو نينا كوك كون موي خليفه ابليس مو في توغال ابليس ديكو ياقال لام دان ياق كون سيغ بي ليم ووتي موي خام خام كوم نانكو خون تي باني اني اجاهد بالعلوم وبالتخا damay jihad ci xam ci xam-xam ak ragal yàlla kon sëñ bi léppam xam-xam la man nahaakum ani taallumi fa zu fa huwa xalifatu laxin al mujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jalla hasibuhu yawm al-jaza wal badal muni is kullu man fi zamani manaa min at attaallumi fa innahu daa li bidatin shaniatin waaw is kullu man fii za zamani manaa képp koo xamee ne jamono ji yu yàqu ji mi ngi leen ciy tere mi ngi leen ciy tere xamlu fa innahu daa li bidaatin kooku da leen di woo jëbaleen ci bidaa shanihatin bu ñaaw nag waaw kooku ki lay teree xamlu nee na ki la teree jàng dalay dalaa woo jëmale ci bidaa te bidaa bon lay doon isil amalu in lam yakun bil ilmi shaabahul xalal ndax ku lay jëfloo te wut te xamloowu la ba noppi nee na jëf ju àndut ak xam moom munte mucc ci ak yàq jëf te tegu ci xam-xam nee na loolu moom ak yàq rek lay lay jur moo tax mu waxoon ca masalikul jinaan ni xultu faman yuru salaaha al amadi fal yarkanan lil awliya il kumali waaw mu xultu ma wax leen ni faman yuru salaaha al amadi ku bëgg a sa jëf fal yarkanan lil awliya il kumali da ngay wéeru ci wali yu mag yi waaw da ngay ci wali yu mat yi waaw is baana jaxaran annama shuyuxu haza samaani julluhum fuxuuxu waaw nee na is ngir baana bir na jaxaran ci lu leer ne annama shuyuxu haza samaani jamono ji julluhum li ëpp ci ñoom fuxuuxu ay fiir képp lañ ca ca jamono jam koy wax kon jamono jam koy wax jamono bii moo taxoon muy wax is baana jaxaran annama shuyuxu haza samaani julluhum fuxuuxu nee na xam leen ci lu leer ni li ëpp ci sëriñ yi jamono ci ni ci ëpp ay fiir lañ wa baaduhum yarkanu li tasadduri ila riasatin bila tasatturin waaw xam na ñoo xam dañuy dañuy jóg rek bëgg a bëgg feeñ bëgg njiit wala mi yumayyiz bayna fardin wa sunan ci koo xamee ni ràññeewul diggante farata ak sunna waaye jisibal wara li mujibil fitan bu ko defee di xëcc nit ñi jëme leen ci fitna kon cheikhun kaamilun murabbin bi ñu waxoon day doon koo xamee ni ku xam tawxid la xam shariha xam tasawuf waaye koo xam ne ni la muy mays bayna farin wa sunan ràññeewul diggante farata ak sunna way zibal wara bi li mujibul fitan kooku moom fu muy xëcc jëme nit ñi mooy li waral fitna wa yaddaxil kamaala wal bidaaya yaddaxal wara bi kasrati riwaaya nee na bu ko defee nag ku noonu moom day woote ak mat di woote ak eh, di eh, ja jéem a jaaxal nit ñi ci kasratu riwaaya bu ko defee di la wax naan mbir mi mbirum batin laak mbirum du mbirum shariha du mbirum nangam fekk sëñ bi mom limu jàngale wax nako ci lu leer o man nahaakum ani taallumi fa huwa lahin al mujrimi kep ku la tere jàng xam-xam koku khalifa shaytané lay doon bu ko defé kon tasawuf moomu nga xamé ni mom la sëriñ bi doon dundu muy tasawuf sunni yu tasawuf bo xam dafa tege ci sunna mom la wax ne ama tasawuf fardu ayn la dal khazali bi bayni may na tasawuf mom kat fardu ayn la fara tay jëm la ndax ki nit ku ci nek ihsan rafetal ni ngay meuna def ba rafetal koku farata la ci yow nga jëm ko xam na ngay def ba mën rafetal nak da ngay ànd ak shaykhun murabbin kamilin mu sëriñ bu mat sëriñ di la tarbiya ba man la tek ci aw yoon ba egalena bu ko defee ne tasawuf bobu nak arkaanuhu nahrifu minha sabha somtan wa juuxan wajtinaabul وتوبة وسهرا وحسلة ثم استقامة فنعمة قصلة نينا تصف بوبو نك arkaanu ay ponkam naxarif min ha sapax juróom ñaari xam nañ ci juróom ñaari ponk mooy sumtan da ngay doon ku ku noppi sëriñ bi tarbiya nit day doon ku ku noppi du wax ci ludul waxi farata waaye wa juuxan day nekk ku ñeme ab xiif waccinaabu bidaa doon ko sori lépp luy bidaa wa tawbatun sax ci di tuub wa saharan nekk ko xam day fokk fanaane jaamu yàlla wa uslatu nekk ku beru ku mën a beru ku ñimi wéetaay suma istixaama topp nag nga teg sa tànk ci sirat al mustaqim inna allazina xaalu rabbuna allah suma staxaamu tatanazalu wa abshiru bil jannati kuntum tuadun kon al istixaama comme ne ent bi waxoon xul amantu billahi suma staqim nee na bu ko defee nga ne temm ca yoonu siraat al mustaqim nee na loolu kon mooy tasawuf ku mel nii nag nga xamee ni am na jikko ba egg ba yàlla gërëm ko kooku mooy ki nga xamee ni mooy ommat nit nag man koo teg ci siraat al mustaqim man koo tarbiya comme niñ ko waxe woon koo xamee ne dalay tarbiya ci nga bàyyi aada la nga tàmmoon kama yurabi yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabihi bi tarkil aada man la tarbiya ba nga xamee da ngay dem ba lépp li nga aada woowoon te dëppwut ak sharia nga mën koo bàyyi mooy lam doon wax ca euh, mawaahibu xad fakk kabla xad basta fadla wa fa dur wala wa dur wala wa nafu jaahi waaw xad fakk kabla jéng dagg na dem ba saytaane jéngatu la bakkan jéngatu la addina jéngatu la aada jéngatu la kooku nag moo dem ba nekk xoron xaalisan ku la wijhati kooku nag mooy شيخ مرب واصل مكمل بو كو ديفه كوكو نك مولا مانا تربيه خم جانغوراي بكان خم ايبي بكان اك ني خيخه موم كوم نيم كو واخه سي بنن بايد ولا ينن بايد نفسا ودنيا ثم شيطان العين هوا فكلها عدو لا يلين انا بكان اك ادينا اك شيطان اك بانيخ neena yi yii ñooy noon yi nga xamee ni noon lañ yoo xam duñ noon yu yu yu ndaw de noon yu dëgër dëgër lañ yu jafe xeexal lil kulli sijnun wa salahun yalamu fa adxilu wa kasiru fa taslamu waaw nee na kenn ku ci nekk ci noon yi am na kaso buñ ko war a tëj am na ngànnaay lu mu yor lu muy xeexe nee na faaw nag nga xam kaso biñ ko war a tëj xam ngànnaay yi muy xeexe nga mën a damm ngànnaay yooyu yàq ko jël ko tëj ko ci kaso boobu bu ko dee fatas la mu nga mën a mucc lii nag sëriñ boo xamee ni moo xam ñeent yi xam seeni ngànnaay xam seeni kaso moo mën a jël nit tarbiye ko di ko jël étape par étape xam fi muy jaara ba kanam ba not ba kanam xam fi muy jaara àddina ba gañe àddina xam fi muy jaara seytaane ba gañe seytaane xam fi muy jaara bakkan ba baneex ba gañe bànneex muy jaawartu nafsi jaawartu bil furqaan rabbiyal muhin malak nafsi wa zaxzaxatul ayin axastu min dunia zaadi lil janaan ah, loolu kon maratib yooyu nga xam ne sëñ bi dem na ba egg ci Euh, dem na ba egg ci nga xam ne ñeent yooyu benn bu ci ne not na ko ba téye ko ba moomal ko boppam kooku nag mooy ki nga xamee ni mooy ki mën a wommat nit jël ko euh, eggale ko ci boromam nga xamee ni mooy comme daara yooyu nga xamee ni tarbiya bi mu daan def euh, comme nam ko waxee ba muy ci discours am bu siiw ba man jaa anaa li taxallumi fal yansur fi amrihi wa man arada an yasira sayrana fal yabxi mahana képp koo xamee ne jàng kese moo la fi indi woon man ngaa seet jeneen daara joo jànge ji waaye koo xam da ngaa bëgg di dox ci suñu doxin nag man nga fee des ñu ànd di dox ci ni ñuy doxee ni ñuy doxee mooy la ngay jàng ci charia da koy jëfee mu di la tarbiya état boo toll ak lam la war a jox la nga war a liggéey ci ay sikar waaye la nga war a am ci ay nawaafil waaye la nga war a def ci ay ibaadaat mu di la ko dicté ba pare di la ci muraaxaba di xool ba xam yaa ngi koy def wala defoo ko di la ci tarbiya ba nga sellal sa bakkan ba egg ji xadaf laa man zakkaha wa xadaxa man dasaha bu ko defee loolu loolu mooy cheikhun murabbin kon loolu mooy euh, tasawuf bu ko defee kon lii as cof ci lii sëñ bi bind ci mbirum tasawuf ak ni nga xamee ni noonu lañ ko war a doxale euh, xam naa comme niñ ko waxee woon lenn lu ci ne ab cof bu tuuti la rek waaye lenn lu ci nekk boo dem sëñ bi téere yu baree baree baree bare la ci bind kon képp koo xamee ne da ngaa aju sëñ bi ñàkk xam waru la da ngaa war a gëstu war a am xam-xam waaye jubadi waru la waaye itam ñàkk a sellal waru la da war a jubal am xam-xam di jubal di sellal ba mën a mel ni nga xamee ni fu ñu sëñ bi ni mel buñ la xoolee yow kat xam ni yow melokaanu sëñ bi mi ngi ci yow ndax yaa ngi koy roy yaa ngi tegu ca yoon ba nga xam ne ni moom la rëddoon euh, bu ko defee kon xam naa ñu tënk foofu di ñaan rek euh, màggal gi mi ngi ñëw yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu dem te weesu ko ñëpp ñi nga xam ñu ngi tegu ci yoon war a dem yàlla yàlla defal leen yoonu jàmm ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm euh, fekk ñëpp ci jàmm bu ñuy génnaat ñu bàyyi fa jàmm fekkaat ñëpp seen jabar ci jàmm ñu nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.